voilà mi ngi noonu dañuy euh, daal di euh, door rek euh, waxtaan bi ah gis ngeen noonu ñu ànd ci ak ñi nga xamante ñooy waa Golden kafe ah, bu neex bi moo tax tey Cheikh Tidiane Gomis nekk en en forme mi ngi nii di naan kafe ah voilà ànd ci ak waa tey Ndaayaan aussi. ak waa tey Jasmine. ma ne Golden. moo ko <laughs> moom nga bëgg ba. waaw Golden moom nga jox bopp instant bi. café Golden. dafa neex. Euh, xaar ma def sama café après lekk sama euh, croissant yu neex yi. d'accord parce que dafa ànd ak croissant yi. croissant wu damas croissant d'avance yi. loolu kon daal matinale su ngeen bëggee yeewu rek jàppee lon ko ak li nga xamante mooy thé golden ah café café euh, golden ngeen daal di am journée bu neex a neex macha allah mu ngeen ko fekk fépp ci euh, Sénégal alors euh, maamu dañ lay bàyyi rek nga daal di waxtaan ak suñu invité. waaw laataa loolu nag Fatou Ka bàyyi ma nit rek ma def comme Cheikh Tidiane. <laughs> yow tamit il faut nga naan. waaw parce que boo ko kii da lay jox inspiration ak sa invité. parce damay sabar su boobaa kàngam la de. maamu daa muus nag. da ngay kii comme ça nga am affaire yu dugg sa bopp. waaw <laughs> comme ça nga mën kaa poser ay questions yu am solo. dégg nga dégg nga maam xam naa ne moom. Ah? sama journée bi moom du wax dara su boobaa. non da ngay jox inspiration. da ngay inspiré éveillé. li tubaab di wax éveillé. ah oui tout à fait day éveillé sa esprit. d'accord nga mën kaa poser ay questions yu neex. incha allah ëpp na dégg nga. ayca maamu bisimilah dégg nga jaajëf waay. <laughs> Mhm. d'accord kon il faut que daa yow mi def yow nag maamu nag maamu nag maamu est ce que doo mën nga boo xaale di waxtaanaale ba tey <laughs> maamu est ce que <laughs> voilà ndeysaan waa delloo ma <laughs> waa delloo ma sama kuddu waa delloo ma sama kuddu neex na trop waaw kay mën nañ bëgg ci waxtaan bi euh, d'accord euh, Fatou Ka di nuyu téléspectateurs yëpp tey nag li ñu fas yéene waxtaane moo di ne impact ak gestion covid 19 monsieur Guèye ñu ngi lay dalal ci plateau Petit ci di la nuyu bu baax a baax ñu ngi lay fay Mamour Euh, xam nga Fatou ñoo ngi ci actualité jusqu'à présent ndaxte jusqu'à présent Covid 19 nag euh, ñëpp ñu ngi koy waxtaanee fépp euh, ci àddina wërgal këpp. Mhm. ñu gis ne fii ci mim réew nag jot nañ fi am impact ki coronavirus bi ci koom-koom gi waaye tamit gis nañ tamit lii di mhm. Covid 19 bi état bi ak gestion bi nu mu ko tëddee tout ça sur le plan économique léegi monsieur Guèye ñu gis ne nag yow tey ban impact moom la Covid 19 def fii ci mim réew sur le plan économique. Euh, merci madame Gassama di la remercier bu baax di nuyu téléspectateurs yi ñuy seetaan euh, di wax ni poser une question bu am solo ban impact donc le Covid 19 def ci àdduna bi ba pare def ko ci Sénégal xam nga Covid bi mu ñëwee yàlla dafa def entreprise yu bari ñoo fermé mais effet bi ci gën a am solo nga xam ni tey boo ko doon euh, seetlu te laal na fépp mooy li ñaan effet ménage loolu la ñuy wax l' effet du chef négatif l' effet du chef négatif boo ko déggee mooy. Euh, consommateurs yi que ça soit yow que ça soit Gomis ou dem Guèye seen li ñuy consommer dañ koy wàññi donc da leen incité ñi ñi jënd moyen léegi bu fekkee consommateur bi dafay jënd moyen cela veut dire que ni bu demee ci marché bi donc kiy jaay nga xam mooy def mooy def offre li muy jaay day wàññeeku autrement moom it fi mu koy jëndee foofu aussi fa mu koy jëndee day wàññeeku kon entreprise bi nga xam si mooy produire yenn besoin yi nga xam si ni consommateur ou bien ménage bi moo ko doon soxla moom it li muy produire daf koy wàññi léegi bu ko wàññee donc production boobu dafay wàññi li ñu naan salarié yi donc salarié bu ko wàññee def li ñu naan licenciement autrement dit donc conséquence bi si gën a am solo mooy euh, effet l' effet du chef négatif dafay répercussion si ménage bi ba nga xam si ni ñi nga xam ne ñoo liggéey dañu leen di wàññi donc loolu mooy effet bi si njëkk mooy effet général léegi boo jógee si effet général bi donc mën nga jëm jël aussi yenn effet yi nga xam dafay nekk par secteur mais xam naa bu ñu ko bëggee développé le temps duñu ko permettre mais di si gën a am solo mooy xam nga la Chine dafa nekk li ñu naan euh, la pharmacie et l'usine donc euh, àdduna bi yëpp comme que affaire dafa commencé en Chine ñu yaakaar na fa lay yem mu jógee fi laal yeneen secteur yi nga xam si ou bien yeneen pays yi nga xam si mel na euh, Corée lu mel ne Japon mais boo xoolee Sénégal li nga xam ñoom lay gën a jëflanteel mooy d'abord la France et la France gis nga ni mu ko laalee boo jógee France yaa ñëw Inde boo jógee Inde yaa ñëw Italie te donc après Chine Italie la Italie effet bi dafa am doole bul fàtte Euh, Italie du Nord mooy fournisseur principal après la France et bu Sénégal surtout le Milan donc foofu noonu li mu fa joué mooy que ni exportation yëpp dañ ko arrêté ci bari euh, autrement dit la nga xam si donc mooy taxes yi nga xam si nguur Sénégal daf ko doon récupérer di ko financer yeneen euh, secteurs yi yooyu aussi dafay arrêté donc loolu effet bu mag a mag la boo xam si ni si si si Sénégal donc dafay dafay metti si économie si koom-koomu Sénégal donc loolu mooy deuxième effet bi nga xam si ni am na ci euh, donc boo avancé encore beaucoup plus loin da nga gis ne donc euh, au delà de la Chine mais aussi si biir dëkk bi nga xam ne les secteurs primaires le secteur tertiaire fépp foo xoolee fi mu toll nii eh, actuellement mi ngi metti raison pour laquelle boo xoolee donc euh, licenciement yi bëri na consommation bi mu wu na entreprise yi ñu ngi tëj et eh bien boo ko defee nag donc effet bi dafay nekk effet général. Mm-hmm. waa dafa mel ni daal impact bi daal dafa touché secteur yi yëpp mooy au niveau national international daal euh, gannaaw bu jógee ci loolu nag tey ñi gis ne état du Sénégal pour mën a atténuer crise bi euh, dafa daal di euh, samp benn fonds ba nga xamante ne ñi daal di si bu rek 1000 milliards de français fa ngir rek mën a atténuer crise boobu yow koppar boobee ban analyse nga ci def ndax jàpp nga ni doy na ngir rek mën a indi ab saafara ci jafe-jafe bi. Euh, absolument euh, wax nga dëgg parce que boo xoolee au bi l'état du Sénégal dafa def ay dettes pour atténuer crise bi euh, dettes yi mu jot a def mi ngi nekk mill milliards est-ce que 1000 milliards doy na wala doyut bon pour man dama doon formuler question bi ndax boo xoolee 1000 milliards yi pour man bu fekkoon am na gestion bi ci war doy na sëkk parce que boo xoolee 1000 milliards yi ci gën a am solo mooy secteur tourisme secteur hôtelier yi donc nga xam si dañu jox 300 milliards. boo xoolee aussi nga xam ni 18 milliards moom moo concerné ménages yi facture d'eau électricité boo xoolee diaspora bi ñu ko dox 12 milliards kon ça veut dire que ni donc 69 milliards yoo xam si ni ñu ngi koy jox donc monsieur Mansour Faye concernant les aides alimentaires bon foofu ñun euh, doy na wala doyul dañ naan bon doy na sëkk bu fekkoon maanaam répartition bi euh, jaar na yoon mais man personnellement bu fekkoon dañ koy répartir wala boog mu bokkoon bi nga xam si moo koy répartir je pense que que ni ñu ko répartir par exemple boo xoolee les 69 milliards nga xam ni dañoo jël 65 milliards rien que des achats de denrées alimentaires ñu jël 4 milliards de plus yoo xam si ni ça va servir ce qu'on appelle le transport la distribution moi nous ce qu'on avait proposé au début euh, le ministre de la santé aussi le président de la république mooy que ni à la place ñuy def ay aides alimentaires il fallait faire des subventions et je pense que c'était plus économique c'était plus pratique que nga dem jëndi ceeb dem jënd diw fayal ko transport ñëw boo ñëwaatee fayatal ko yenn transport pour ñu distribuer ko te d'ailleurs bul fàtte ni on est en gestion Covid et en gestion Covid ce qu'on évite c'est le rassemblement et donc bu fekkee da ngay distribuer forcément da ngay indi et bon la deuxième chose la plus importante mooy que ni bul te ni euh, ñi nga xam ñu ngi door jot aide bi ñu ngi koy door jot actuellement ça veut dire trois mois ou deux mois après la crise donc raison ndax 1000 milliards doy na dama naan bon doy na sëkk parce que li fi liñ doon xaar ko ñu def ko vraiment foofu euh, président de la république euh, donc ak ay conseillers des na lu bëree bëree bëri parce que ñu boo xoolee donc euh, information ñu jot a am da ngay gis koo xam si ni danaan la donc je me si inscrit j'ai pas reçu d'aide mm-hmm. koo xam dafay inscrit trois fois recevoir aide deux fois trois fois koo xam si il est dans le besoin il n'arrive pas à s'inscrire donc ce qui ce qui veut dire que mm, proposition bi ñu njëkkoon a def nga xam ni c'était des subventions yoo xam ne si boutique bi nga jënd benn litre diwlin kii jën benn saako ceeb kii jënd benn saabu kooku da nga siy am directement te doo si sonn te état bi si fay transport. c' était les subventions c' était le plus, le mais quand temps nga jël xaalis pour dem jënd ñëwaat je pense que c' était à éviter. malheureusement c' est déjà fait donc ce qui reste à faire c' est quoi c' que de faire un un suivi ou bien un un obligatoirement donc geste euh, audit da siy am. yo <laughs> dafa mel ni si sa waxin daal ni gestion bi daal des na daal bu baax a baax absolument en fait euh, bu fekkee vous êtes un intellectuel euh, vraiment très honnête mhm. très honnête parce que yàlla def na ñun féetewuñu si benn parti politique on est dans la société civile mais notre rôle actuellement c'est de dire le gouvernement ce qu'on pense et ce qu'il faudra faire mais pas d'encourager quelque chose qui ne va pas la gestion amul kenn koo xam si bon il faut dire sur le sur le plan de la communication sur le plan de la sensibilisation ils ont réussi franchement ils ont réussi à informer à communiquer mais concernant la gestion financière absolument nul ne peut confirmer que ni gestion bi jaar na yoon mm. et d'ailleurs li koy prouver que ni y a beaucoup de mécontentement pourquoi les gens sont sortis à la dernière minute mm. pour réclamer donc euh, les euh, augmenter du couvre-feu c'est parce qu'ils étaient trop fatigués c'est parce que l'aide a est venue tardivement du dëgg mhm. donc kooku bu fekkee intellectuel bu honnête nga nga bëgg conseil président de la république da nga naan ah bu fekkee am na gestion covid 20 parce que là on est en covid 19 il faudra que ñu xool xërxi ci am yëpp pour que ñaan ñu ko yàlla bu covid 20 amoon la war a def donc loolu ñu war a président de la république mooy que ni euh, distribution yi nañ ko bon c'est c'est pas la bonne solution bu fekkee dafa war a am aussi nañ ko def à xoolee lu mel ne Chine c'était normal que affaire bett ko parce que fa la commencé mais en Afrique en Afrique on devait prendre donc les devants avant mi ñëw. parce que am na un mois au moins avant mi ñëw Afrique. donc foofu ñun waroon nañu vraiment mën a prévenir lu bëree bëri mais malheureusement ça n'a pas été fait donc boo nee ma gestion bi des na effectivement dañuy confirmer sans nul doute que ni gestion Covid bi sur le plan financier dafa des lu bëree bëree bëri. yow kon en tant que économiste tey te ngay yëngu ci société civile tey booy noter gestion bi ban point ngay jox njiital réew mi wala ak équipe am bon absolument bu ma doon noter gestion bi danaa xam ne sur deux parti deux parties gestion gestion communication vraiment ils ont une bonne note de 9 sur 10 sur la gestion financière bon bu ma généreux ba généreux je vais donner 5 sur 10 ou bien sur 10 parce que bon <laughs> effectivement waaw bon monsieur Guèye oui professeur oui billaahi 5 baax na waaw en fait c'est parce que parce que booy xoolaat yow li nga wax mhm. te mu nekk constat bi am absolument li nga wax c'est palpable. Absolument. parce que dañ ko gis. absolument déjà. li nga wax ñu bari waxoon nañ ko au départ. Mhm. ne ay ceeb ay diwlin mais am na ñoo xam ne ñoom dañu ñu lekk ceeb. absolument am na ñoo xam ne ah, seen besoin du ceeb. absolument seen besoin leneen la woon. absolument subvention boobu ngay wax. Mhm. c'était la seule. et mhm. c'était la meilleure manière pour mun a permettre nit ki euh, vraiment. moom mu mën a régler ay problème am kooku boom bu toogee man dama def benn calcul xaw ma ndax bu ma juumee nga ne ma na man j'avais dit dama ne booy xool il faut nga comprendre sociologie wu euh, maanaam Sénégal da ngay xool euh, Sénégal ñan ñan à partir de ban âge ñooy commencé euh, di maanaam jàppale seen papa seen yaay di ay soutien de famille tu prends dangay ngay jël vingt ans à de vingt ans jusqu'à soixante ans âge de voilà li nga ñooñu euh, vingt ans soixante ans nga jël kii boobu ñooñu nga subventionné leen boo ko jëlee ci mille milliards yi nga jël yow nga subventionné leen chaque mois tu donnes yow nga jox ku nekk cent cinquante mille boo defee calcul bi sincèrement du mbat sax un euh, euh, euh, mille kii wax yi. du ko mat. Mm-hmm. Mm-hmm. et la tu ré réglé nga problème bi parce que je donne un exemple parce que léegi nag yow nga ñëw benn famille nga gis tranche d'âge boobu am na fa ñett ñeent ñett nga dugal fa cent cinquante mille cent cinquante mille c'est ça c'est quatre cent cinquante mille quatre cent cinquante mille ñooñu bu ñu booloo ci kër gi mën nañu gere seen kër fay courant fay ndox mm-hmm. fay lépp. fay tout te du ñu am benn problème. kon nag man man man man ci côté boobu laay kii mais man question bi ma la bëgg a poser mooy mooy <coughs> aujourd'hui tey jii. est-ce que c'est trop tard parce que Covid baa ngi fii ba léegi est-ce que c'est trop tard de mieux faire. Bon, c'est une bonne question, mais est-ce que c'est trop tard? Euh, pour répondre cette question, il faudra savoir qu'est-ce qui nous reste sur les 1000 milliards. <laughs> Euh, en terme économie bon pour boo bëggee engagé ay dépenses da ngay xam sa budget ñaata la. Euh, pour le moment mu ñu si mu ñu si parce que xamuñu parce que 1000 milliards boo ko doon tey divisé ñaata lañ jot a génne ak ñaata si des qui a l' information. <laughs> donc loolu pour nga répondre faaw nga am information bi ñaata nga war a dese. c' est que on ne le souhaite pas s'il y a à refaire. s'il y à refaire le président de la république a reçu des informations sur tous les plans sur tous les secteurs ki ni affaire bi am na lu bëree bëri des na. Euh, je pense que euh, li nga wax solution la pour ñu euh, jeunesse bi ñu jàppale leen mais d'ailleurs boo xoolee même aide bi ñu doon wax nga xam ne da ngay jël nit di ko jox xaalis en liquide dañuy conseillé ni xaalis en liquide na kenn dootu ko joxeeti entreprise boo ko bëggee jàppale da nga ko jàppale y a des charges fixes y a des charges salariales y a si yooyu nga koy jàppale mais boo jëlee nit di ko jox xaalis déjà déjà xaalis bu commencé début bi balaa àgg dafay am rëq si diggante bi donc boo xoolee même dans les grandes entreprises dans les grands pays comme la France qu'est-ce qu'ils ont fait dañoo jël entreprise yi gën a mag nga xam ne ñuy defar masque ils ont pris pratiquement quatre entreprises yoo xam si masque lañ doon defar ñu ne ah maintenant c'est le moment ñi jàppale leen vous voyez injecte fa subvention ñu commencé defar ay masques nga xam ne commande ñu doon def nga xam ne c'était très difficile donc commande bi ñu koy diminuer au Sénégal c'est ce qu'il fallait faire avant de venir bon dañuy fermer frontières yi qu'est-ce qu'on euh, Sénégal Euh, économie bi nii lay doxee dafa am ñetti secteurs yoo xam si ni bu baaxee baax na bu baaxul baaxul bi si njëkk mooy euh, secteur agriculture. <laughs> nga xam ni 70 pour cent de la population sénégalaise <laughs> sont des ruraux. mais effectivement boo xoolee nga xam ni pourcentage boobu 70 pour cent des des ruraux donc qu'est-ce qu'il faudra faire pour les appuyer donc sur la Covid 19 boo jógee si agriculture yaa ngi si pes bi. Et vous faites une pêche de léegi donc il a toujours euh, donc, des rumeurs, il y a des licences de pêche. Vous voyez, il intervenir bu baax a baax. Léegi nag boo fa jógee nag deuxième partie bi nga xam si ni mooy deuxième partie bi nga xam si mooy le tertiaire que ça soit les services les télécoms euh, donc euh, tourisme parce que bul fàttali bi mu amee tourisme la njëkk laal. Mhm. donc secteur tourisme c' est que ni appuyé nañ leen. Mhm. mais la prochaine fois il faudrait bi franchement mënuma confirmer tout de suite que ni c'est une bonne gestion mm. maintenant ce qu'on attend c'est que le ministre donc euh, monsieur Mansour mm. parce que boo xoolee budget du Sénégal c'est milliards de francs CFA mm. c'est pour mois et donc à l'espace de trois mois vous avez reçu milliards donc boo doon jël pourcentage bi nga jël milliards par rapport à milliards donc quatre euh, dire que foofu noonu da ngay xam ni donc on demande un rapport des rapports financiers surtout mhm. que man bi ma jotee 69 milliards yi bon parce que au début on a déjà constaté donc des problèmes au niveau de la commande. ñoo kon dafa mel ni si sa waxin bu ñu la comprendre moo ni dafa mel ni euh, transparence ak rigueur des na ci mbir mi te bu ñu nee euh, finance rek lépp a war a leer daal. mais madame Gassama absolument donc euh, mun faaw nga ni transparence des na si parce que bi si njëkk mooy la commande comment ça s'est passé et je pense que comité bi ñu installé. dañ ko doon installé avant ñu def commande bi parce que yow mënoo togg ceeb nga togg ba nga xam si ni yàq moo ci des nga ni yow kaa ñamal ma fekk def nga ci xorom ba pare kon bu boobaa yow boo ñemee bu neexee ak bu neexul yëpp da nga naan bon on n'a pas le il faut ñu yàq ko du noonu donc comité bi il fallait installer ça avant nga xam ne comme dafay surveiller ban ban entreprise mooy jël mooy jël commande bi yan critère parce que en en économie avant de faire une commande ou bien avant de de de confirmer une il faudra nga xam état financier entreprise bi mhm. il faudra nga xam ne entreprise ndax mi ngi fay fisc ou pas mhm. il faudra nga xam ne entreprise bi kañ lañ ko lan mooy activité normale am mais boo xoolee ñi nga xam ne dañoo jotee gagné marché bi c'est ce sont des entreprises yoo xam si ni yàgguñu secteur bi et en plus moi je ne suis pas di que nii kii Sénégal la kii du Sénégal ce que je suis pour c' que entreprise bi gagné marché bi mu nekk une entreprise boo xam ne si nit ñi xam nañ ko si ba pare am na entreprise boo xam mhm. si mhm. ma accepté entreprise boo ni dafay am problème fisc nekk entrepreneur de rapporter marché mhm. autrement la ngay xalaat da ngay xalaat ni bon parce que euh, les sénégalais yàlla dafa def man tey yàlla dafa ma nattu may wax mais ñi may déglu ñoom ëpp xam-xam si li wax ñoom yàlla def na leen ñi ngi jiite mais ñi ñuy jiite <coughs> on est à 16 millions actuellement mm-hmm. donc ñi ñëpp ñi ngi ubbi seen bët di déglu di xool léegi nag bu fekkee nekk nga nit koo xam si nit ku honnête nga ça ne fait rien ni nga ni sa papa li ngay def kat mën nga fa gën a yokk du dëgg mais vraiment commande bi euh, ni mu jaaree du début à la fin euh, convaincre ñu nous en tant que des économistes ça ça nous a pas plu mm-hmm. on aurait dû voir la commande ou bien Euh, l'offre euh, pendant des jours ñu xool ñen ñoo ko gagné yéen mooy critères yi mais da diw gagné na ko mhm. ñi ñoo proposer un service gratuit nga ni bon je vais attendre vous li nga xamante ni mooy commande bi yooyu noonu mais ba tey ci li nga xamante ni mooy wàllum gestion bi monsieur Guèye xam nga euh, ñu ngi si waxtaan sànq mën a Cheikh Tidiane Gomis démb gis nañ ki nga xamante mooy le xalif général des Tidiane li mu wax kii di ministre de la santé Diouf Sarr parce que nee na ko état bi dafa démissionné face à à la à la crise te bu sérieux bu démissionné surtout ci ci moment yi ñu toll alors ci démission boobu nga xamante ni état bi daf ko démissionné euh, selon yow yaakaaroo ne économiquement parlant moo tax mu def ko parce que dem nañ ba si biir ñëpp gis nañ ne secteur yu bëree bëri bëri su suuxoon nañ surtout li nga xamante nii mooy le secteur informel te ku wax euh, le secteur informel xam na ñoom dañuy participer bu baax ci li nga xamante ni mooy économie économie réew mi ndax ñoom xalaa xalaatuñu woon ne dañoo euh, dañoo xalaatoo ne dañoo démissionné pour amaat liggéey wala yow noo ko gisee démission boobu noonu. bon effectivement la xalifa ñu ngi jaale bu baax a baax suñu mm. papa suñu mm. sëriñ suñu papa maaj a baax di ñaan yàlla suñu borom yàggal euh, mm-hmm. euh, nga mooy li ma bu fekkee ni ki da koy diriger li muy fi mu lay xaar boo fa agsiwul mm-hmm. mm-hmm. euh, de la justice bon ministre de la santé au début du Covid moi personnellement je l'ai gérer la crise mhm. parce que mënuma comprendre mille milliards nga am ko tey jii nga dem hôpital am problème lii de réanimation mhm. mënuma comprendre mille milliards nga am ko tey nga amoo un hôpital supplémentaire mhm. vous voyez moi c'est ce que je vais proposer pour lui je vais dire que si c'était à votre place je n'allais pas recevoir de l'aide financière par contre je vais faire des recommandations parce que on peut construire un hôpital en un mois il a des pays qui Et bon, on est à Dakar, on est après Dakar, on peut aller sur Touba on peut aller sur Saint-Louis. Vous voyez, construire des hôpitaux, c'est ce qu'il fallait euh, faire. des commandes, des lits dans l'avenir, on ne jamais. Mais actuellement, tey boo def parce qu'il des soucis entre le ministère et le professeur, vous voyez. pourquoi cela? C'est parce que moom en tant qu'intellectuel li mu proposé effectivement mhm. loolu ma doon yoon. Mhm. def ay commandes euh, en parti benn parti d'accord naa chef de l'État fu mu ne day yokk day yokk couvre-feu parce que euh, diriger c'est très difficile il est arrivé en un moment il est coincé et la population voudrait sortir et bon foofu président de la République il a été très malin que mu fekk population si lu mu bëgg mooy que nit ñi bëgg nañu génn dem liggéey bëgg nañ ñu ñëw yokk couvre-feu bi effectivement il fallait que mu alléger ko seulement que ni sur la sur la gestion financière absolument waaye nag waaye nag wa wa non waaye nag foofu nag foofu nag moom moo créé loolu moo créé ba la santé ak ki nga xamante ni moo di euh, mhm. euh, suñu goro président war nañ rendre compte ci ñi nga xamante ni gestion bi ñu leen dénk mhm. alors euh, Mamou dañoo lay jaajëfal bu baax ci li nga xamante ni indil nga ko woon mhm. yow aussi monsieur Guèye ñu ngi lay remercier ci disponibilité bi ah, bu baax a baax waaw bi neexoon na trop Mamou ñu bàyyi la nga tàggoo waaw di tàggoo rek di remercier monsieur Guèye bu baax a baax xam naa fu mu koy tëjee tëjee rek moo di ne du ñàkk dana wax ni est-ce que Sénégal mi nga xamante ni ne est-ce que mun nañ jotu ci souveraineté sanitaire alimentaire mais da koy tënk rek xam naa quelques secondes waaw waaw dina bu soobee yàlla mm-hmm. incha allah waaw euh, di ko remercier bu baax a baax moom ak mm-hmm. téléspectateurs yi yëpp mm-hmm. d'accord merci beaucoup donc euh, lay uh-huh. remercier bu baax di remercier donc invité yëpp euh, bu ngeen ma permettre rek di yeesal aussi sama njaal bu baax a baax si uh-huh. sama nijaay El Omar Ndiaye nekk xalifa général bu Kalasaan di ñaan yàlla suñu borom aussi dolli ko leer dolli ko yërmande di di ko jaale aussi suñu mag yëpp Babacar ak Ndiogu ak Moussa di ko ziar di mhm. jaale ñëpp rek euh, di kontaan baax a baax si émission bi d'accord ñun mhm. tamit amoon nañ mbégte bu baax seek ak yow waxtaan bu yaatu boobu lee di jox rendez-vous rek prochainement incha allah ci yeneen i waxtaan ñu daal di ñëw léegi-léegi ñu dem ci rubrique euh, euh, actualité